dal leen ak jàmm yegg si ngeen ci seen chaîne bi ngeen tamul seen bop la Biir TV di len ñaan ngeen abonné ta activer cloche bi ndax ngeen di jot lépp lu ñu fi si jëf danga bëgg a jàppale sa doom mu am formation universitaire de qualité ci benn université américaine fii ci Sénégal DOST DAUST ñu koy wax Dakar American University of Science ak technologie di université boo xam ne bu panafricaine la nga xam science ak technologie rek lañu ko jagleel fii ci Sénégal DOST da leen di jox benn formation 100% en anglais ba noppi lépp da contenu académique identique aux universités américaines ak DOST di ngeen am possibilité wu nekk

xam ni inspiré ci université américaine yi contenu bi yëpp foofu la jóge dost dalay lay formé nga daal di am benn approche boo xam ne dañ ko basé ci anglais lépp loo xam dañ la koy jàngal dañ la koy jàngalee ci anglais salle de classe yi ba si laboratoire yi ñu daal ko équipé ba mu mat am équipe pédagogique bu qualifié waaye nag dost dalay jox enseignement programme en anglais ñi nga xam ne dañ ko déjee yëpp ci domaine innovation ak robotique ak intelligence artificielle ak machine learning ak codage ak mécanique ak aérospatiale loolu yëpp nga fay jàng ci bëggee am lu leer ci numéro bi amna whatsapp 00221 78 128 44 58 78 128 44 58 wala nga visiter suñu site web www.dost.org wala dig daje ci suñu page Facebook Instagram wala Twitter wala sax mën nga ñu yónnee mail ci admissions ak s Home Choice Sénégal mooy këru ouvrier yi mooy këru professionnel yi képp koo xam ne da nga di professionnel di liggéey wala ngay ouvrier da ngay soxla outillage ñun numéro un ci wàllu outillage fii nga xam ne moom di ci réew mi ak dem ci bi la marque Total est de renommée internationale lan nga bëgg groupe électrogène aspirateur pompe émergée motopompe meuleuse perceuse visseuse wala lan Total suñu adresse mi ngi nekk 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 821 45 45 suñu partenaire ñinga ci ca Mbour Tiwawan Pikine Tali bu Touba Kaolack mais aussi à Saint-Louis la marque Total fo dem ci aduna bi fekk ko fa ndax qualité jataayu fatwa yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex FM jeglel na leen seen émission bi di Alfatawa Alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu bu jot vingt et une heures jàpp ngeen ci ànd ak al oustaz Abdallah Baba Dieng mu ci feggoo ak ak docteur Mouhammad Ahmad Lo ak seen émission bi di al fatawa ku am ab laaj jëmale ko ci émission fatawa mën nga koo bàyyi ci numéro bii nga mën faa bàyyi sa laaj ci whatsapp bi kumpa tàggalikoo nag yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine عزمات يميني لو عندي عمر يكفيني نشرت تعالي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بكو دي تيري تيجي تي الاربا سمبي 14 سبتمبر 2021 نواتي ين سن ان شاء الفتاوى بين عندك شيخنا دكتور محمد احمد لو ñu leen di ziar ak fu ñu man di toppee ci àdduna bi ci continent yu wuute yëpp ak ci dëkk yëpp ak ci eh, rajo yi ngeen ñuy toppee muy leeral bi ci Louga wala keppaar ga ca Kaolack wala salaam ba ca Mbàkke wala leeral ba ca Ziguinchor wala leeral ba ca Podor wala ci yeneen réseaux sociaux yëpp ñaan yàlla subhanahu wa defal ñu tawfiq defal leen ko defal ko mboolem julit kon eh, Cheikhana ñu bàyyi la nga ibbee ñu doogay ñëw ci lenn lu fi rot ci laaj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 Cheikh Abdallah gannaaw buñ leen nuyoo nuyu ki nga àndal ci xarala gi mën nañoo daal di jublu ci liggéey bi waffaqakumul baari jërëjëf cheikhana jazakumullahu xayra cheikh bi kii nee na dana am euh, société nee na naka la ñuy génnee azaka bi par at te xam ne société bi moom xaalis bi dafay demak di ñëw rek même bu demee ba at bi di waaj jot sax mën naa am xaas dem na ñëwaat yu demee noonu nee na nu ñuy génne asaka alhamdulilah asakay société euh, jaaroon na ci fatawa euh, lu jiitu loolu waaye ñu xam ne société bi benn mu doon société boo xam ne ña ci bokk nekk kenn ku nekk da nga indi rek la nga am waaye tolloolewuñ luñ ca am maanaam boo ko doon seet am na ci koo xam ne moom moom cinquante cinquante pour cent yi ci société bi waaye am na koo xam ne vingt pour cent la ci am am ci ko ci am dix pour am ci koo xam ne cinq pour cent la ci am su boobaa ñoom tolloolewuñ luñ ci am société bu mel noonu waroom xam-xam yi juyewuñ ci ne suñ dee asakaal seen alal kenn ku nekk da ngay xool la nga am num toll su fekkee ne mat na nisaab ba ñuy génnee asaka yow mi moom cinq pour cent wóor na la ne li nga am mat na nisaab bi ñuy génnee asaka te ba nga ko dalee dajaleeg léegi mat na at su boobaa nga génne sa asaka yow sans mbirum ñeneen ña ca ñooñu it kenn ku nekk yaay seet sa bopp leneen li ci des mooy société boo xam ne ñi ca nekk ñoo tolloole képp kii am na cinquante pour cent kii am cinquante pour cent ñuy ñaar su leen neexee ñu calculer seen asaka noonu yi ma wax mooy kenn ku nekk xool li nga am ginnaaw mat na asaka te mat nam at ci sa loxo nga daal di koy génneel asaka su fekkee nag soob na leen ñu xool alal jëpp asakaal ko benn yoon su leen wóoree ne alal jëpp mat na asaka te at mi mat na yoon asakaal ko su boobaa it moog la la ñooy ñooyam rek ñooy tolloo euh, société nag comme ni mu ko waxee su xasee bay liggéey moo commerce yu baree bari ak business ak yu nuróog yooyu euh, day dem ak a dikk léeg-léeg ci biir at mi mën naa dem ba bari lool waaye mën naa wàññi lool it ci biir at mi léeg-léeg jamono yi muy bari mën naa dajeeg waxtu asaka waaye jamono yi muy wàññeeku ba tuuti des ca mën naa dajeeg waxtu asaka على كل حال يوم جناو دم ديك سبب لوينكو لجاي بموت دنون ليفر موي نانيو بس داني ген اساكا تي اتمي صابو بو خامن بس بوبي نيونا رك ليپ لوم فك مو سين كابيتال سو بوبا ني لولا نون هكلا والله تعالى اعلم جزاكم الله خيرا جرجف شيخنا cheikh bi euh, borom laaj bi moom it euh, nee na dafa nekk ci benn internat boo xam ni bu ñuy jànge alxuraan la mais nee na xale yi euh, ni ñuy daggatee jukki yi sax dafay nekk fooy yu bari da koy dajale nen neen nag ndax su ko dajalee dina dagan mu mu suul ko wala da koy lakk wala nu muy def alhamdulilah kayitu alxuraan yoo xam ne dafa dagg yooyu jaadu nañu ormaal ko des na ko lakk des na ko suul itam nag waaye su fekkee ne mënees naa am béréb bu sell te gas ba mu xóot su boobaa suul ga mooy gën a yey lakk ga ndax suul dafa doon loo xam ne lu ñu xam ci lislaam la ci yeneen yi nga xam ne dañ leen di ormaal lu mel ne doomu aadama su fekkee xool nañ ko ci wet googu danañ gis ne suul moo gën a yeyoo lakk su fekkee alxuraan la tañ mën a am béréb bu sell gas a gas ba xóot ñu dogal ko fa suul ko loolu moo gën a yeyoo wallahu taala alam jazakum allahu xayran bi kii nee na moom dafay liggéey ci service euh, transfert transfert euh, d'argent yi nga xam ni da ngay ñëw jox leen xaalis ñu yónneel la mais nee na nag euh, ñi nga xam ni mooy opérateurs yi danoo wàññi ñoom liñ leen daa jox ni leen daal lii pour masalan un pour cent bi wala nangam bi moom moom ngeen ci am ba tax na ñoom it liñ daa am ci bénéfice dafay wàññeeku ñoom ci seen bopp nag ñoom ñu waxtaan ci seen bopp organiser seen syndicat ñoom ci seen bopp ñu yokkal seen bopp service ba yokkul waaye ku ñëw ci ñoom dañ naan la lii kat nangam la ci kii jox waaye danga may joxaale nangam masalan dama lay yónnee deux mille euh, cinq mille laa la yónnee mais cinq mille cinq cent la mais yow danga may joxaale euh, wala cinq mille euh, cinquante franc la mais yow danga ma ciy jox danga joxaat yeneen cent franc nga xam ni Euh, ñoom daal ñoom ñoo ko waxal seen bopp defal ko seen bopp te kële te amuñu ci ndigal ca opérateur ba mu ne ndax loolu dagan na wala déet alhamdulilah su fekkoon ne opérateur yi ci seen bopp day ñoom ñoo leen yokkal su boobaa loola euh, kenn du ca wax dara waaye ne ginnaaw ñoom ñoo jékki jékki wàññi lañ doon am su fekkee dafa wér ne am nañ syndicat boo xam ne seeni àq lay kaas su boobaa la jaadu mooy ñi wax ak opérateur yooyu ne leen wàññi gi ngeen wàññi jaaduwut waaye wëlbatiku nag bëgg koo tegaat client yi loola ci bopp moom nekkut loo xam ne lu jaadu la ala kulli xaal euh, diggante la daal boo xam ne bu am ay xat-xat la bu xaw a am itam ay lënt la waaye ala kulli xaal lépp ñu wëlbatiku yan ko ñi nga xam ne ñooy client yi loolu moom xàqan bi ci yoo xam ne jaaduwut kon ñoom ginnaaw am nañ syndicat nañ wax ak ña wàññi ne leen li ngeen wàññi yokk leen ko su ngeen ko defut loolu duutu mën a dem su fekkee wér na ne loola daf leen di perte loo am ma wàññi ko bénéfice nag loolu moom moog liggéey ñoo ànd kii jaay day dem ba mu yàgg lam doon am ko leeg léeg-léeg mu yokk kii liggéey it mën nay dem ba mu yàgg lam doon am ci biir liggéey ba di wàññiku léeg-léeg sax mën naa yokk waaye nag saa bu wàññiku nga ne des koy yokkaat suñ ko yokkaatul nga daal di koy teg client ba loolu mu nekkul pirin woo xam ne mënees na ko xam ci déggiinu lislaam wallahu taala aalam jazakum allahu xayran cheikhana wa baraka allahu fiikum cheikh bi kii nee na yaayam da koo seet si ci këram fi ñu luyee nee benn néeg dong lan fa am mook boroom këram yaayam amul faneen fu mu mën a fanaan nee na ndax euh, dina dagan mu fanaan ci kaw lal bi moom ak yaayam ak boroom këram alhamdulillah yaayam këram mënuñoo bokk fanaan ci benn néeg waxuma la benn lal loolu shariatul islam nanguwu ko kon ñoom fekkee ne seen yaay mënta bañ a fanaan ci kër googu gi sooy boo ñu bàyyi ko ci néeg ba mu fanaan fa ñoom ñu dem seeti eh, fu ñuy fanaan waaye loolu yi mu wax moom xel xalaatu ko waxuma la ab lal waaye ab néeg sax mënuñ caa bokk fanaan naam waffaqakumul baari jazaakumullahu xayra cheikh bi eh, laaj bi moom it sëñ bi koy laaj insisté na lool yeesa dafay am laaj yoo xam ni jàll na fi lu ay lu bëree bëree bëree bëri xëy na nag ki koy laaj moom soxlaam rek lay xam xamul li jàll na fi su ko defee day insisté di insisté dañuy gis koo xam sax dina ni nag man yàgg naa laaj bis bu nekk ma yónnee sama laaj te kenn du ma tontu fekk dafa fekk ni jàll na fi ay yooni yoon waaye li muy laaj jàll nee na ndax dina dagan soxnaam mu def planning ba mën a nàmpal doomam deux ans ba pare doogay tàmbali waat leneen lu muy tàmbali alhamdulilah planning ci sharia day dafay jaadu ki koy def lay tax mu koy def na dellu ci wér gi yaramam walla mu dellu ci wér gi yaramu doomam te fekk la koy saxal ne lii war naa am wala warta am day fekk bu nekk docteur boo xam ne bu maandu la bu ñu xam ci maandu su ko defee euh, kii nàmpal te mu wóor ne doomam xiiboon na xiiboon boo xam ne nàmp yaari at yu mat sëkk rek moo baax ci moom su boobaa sañ nañoo yeexe ëmb ba jëfandikoo jumtuwaay buy tax ëmb yeex a am ba mu nàmp yaari atam ndax foofu la nàmp yam borom bi tabaraka wa taala nee na wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutimma radaa ku bëgg matal nàmp ba daal euh, ndey ja sañ naa nàmpal doomam yaari at su boobaa nag mën naa jëfandikoo loo xam ne du ko da koy gàllankoor ba du ëmb ci diggante boobu yi waaye nag loolu yi dañ koy tënk ci kaw su fekkee wér na ne doom ji nàmp yaari at doomu moo baax ci moom waaye am na ci gone yoo xam ne mën nañoo nàmp mennum at daal di mat sëkk fekk jàngal nañ leen lekk ñu mën a lekkal seen bopp ku mel noonu kenn du planning naan dama ko bëgg a nàmpal ñaari at mën naa bindoo noo xam ne it yaay ji amul benn gàllankoor ci ay jur yu jege du ko wàññi dara su boobaa moom it am sañ-sañu di planning su fekkee nag yaay ji dafa lompoñ maanaam wéradi xiibon docteur yi seet ko gis ne kii àttanul ëmb yu jege su boobaa sañ nañoo seet yan ban diggante la àttan su ko defee diggante boobee mu tënku ca diggante bi muy soreel am juróom ba àgg ci fi nga xam ne fi lañ ko wax ne ko sa wér gi yaram mën na koo attun suñ ne ko woon boo toogee yenti at ëmbaat toogaat yenti at ëmbaat lu mel noonu xëy na sa wér gi yaram li xam-xam joxe mooy mën nga koo sàmm saytu ko su boobaay it sariya day wax na ne def loola su fekkoon ne dem na ba ñuy gëstu ci wàllu wér-gi-yaram ne ko yow mii soo ëmbatee sax wala yaasu billahi sa bakkan xaj na ci su boobaa sañ naa def lu ñuy tuddee limitation de naissance mooy bañ a ëmbati nag ba faw moo tax sharia moom day sàmmoonte rek ak wér-gi-yaram bi li mu dul nangu daal mooy yeneen i cause yi nga xam ne moom la nit ñi di faral di wax maanaam ay sabab yoo xam ne dañuy tax ñuy planning xale yi buñ baree doo leen mën a yar doo leen mën a jox ñu lekk doo mën a jox nangam déedéet yooyu moom loolu du tax nit ci planning moom wala damay jàng wala damay liggéey walla nangam moo ma bëgg gu léegi loolu sharia xamu ko lay yooyu ñuy wax yëpp ay lay yoo xam ne yu taxawut ci sharia la wallahu taala alam jazakum allahu xayra bi kii mi ngi tudd Baye Abdou mbay di wootee ca Gàmbi nee na ñoom daal seen imaam bi nga xam ne mooy imaamu ratib bi dafay def loo xam ne daal daa xamul ndax loolu ci sunna la walla déet nee na saa su nekk buy xutba ñaareelu xutba bi buy demee bay waaj a jeexal daal day yuuxu ca kaw laa ilaha illa allah ñi si jàkka ji tamit ànd ci ak moom noonu nag loo wax dëgg yàlla moom rek lay gis muy def loolu nag ci gaam bi mu ni ndax loolu sunna la wala alhamdulillah loolu yi ne moom la seen imaam ji def day mooy di yooxu di tudd yàlla nit ñi ànd moom di yooxu di tudd yàlla loola moom bu fekkee lu muy saxoo la loolu day daal di génn sudda nag day génn na daal di bëgg a dugg nag ci biddaa ndax lu mel noonu kat yonent bi sallallahu alayhi saxaaba yi di toog di ko déglu waaye loolu tuxalewuñ ko ci moom xëy na su doon lu ko gaar benn yoon wala yaari yoon mënees na lii lu ko gaar la te it du jaaru nit ñi nag di ca ànd ak moom ndax buy xutba moom eh, nit ko daa war a déglu su fekkee nag eh, lu mu bëgg a saxoo moom kooku li ma ko waxee day daal di dugg nag ci biddaa wallahu taala alam jërëjëf cheikhana jazakum allahu xayra cheikh bi ki Amérique la ñuy woowee nee na moom daal dafa sonn lool ci ay waswasa yu koy dal buy jàpp buy julli yépp mu ni nu muy def nu muy def ndax mën naa julli ñaari yoon mën naa jàpp ñetti yoon neen daal dafa day sonn nu muy def alhamdulillah waswasa de dafa doon mbir moo xam ne bu xasee dugg nit su góor góorgóorlu wut mën naa yokkoo yokk ba andil ko fitna euh, des koy xeex nag des koy xeexe mooy bari looy muslu ci shaytané a'udhu billahi minash asheytaani rajim ci loy def lu nek bolé ko ak bari looy jàng ayatul kursi ndax day dàq shaytané su ko defé leneen li ko def nak moy di dogu soy def dara mu andil la ci sàkk ndax li am na wala amul jàppal ne amna kon lolu moy li nga xamne moy li jaadu ci lu mel noonu yaa ngi sikk sàkk ndax julli gi mat na ak matul jàppal ne mat na su boobaa lu bari ci atte yi nga xam ne moom moom lañ doon jox amatul naas ki am was waso day am beneen atte boo xam ne bokkul moom mu ngi nattable ndax raxas na cër bi ñaari yoon ak ñett yoon ak ñaata yoon la ko raxas na jàpp ne set na rek jàll ci beneen su ko xeexee xeexi nu mel noonu boole ko ak muslu ci seytaane borom bi tabaraka wa taala mën naa dogal euh, waswasa du ko not ba di ko indil fitna naam macha allah jazakum bi kii nee na gouvernement bu itali dafa am loo xam ne moom la doon fay maam immigré yi léegi nag da nekkoon ci yéeg ak wàcce ci tribunal ba ñoom ñu mujj gañe ba léegi gouvernement bi war na leen rappel depuis deux mille quinze ba léegi nee na loolu ma leen di rappel ndax dañ cee war a génn azaka wala déet xaalis boobu nga xam ni xaalis juróomi at la euh, weesu na ci leen war a génn azaka ndax dañ ciy génn azaka wala déet alhamdulilah alal jooj yi mu wax ne dañ ciy door a jot te bañ ko yeeyoo ak léegi dem nañ ci juróomi at yu tegal saa buñ ci jotee rek dana jaaruñu daal koy asakaal fi saasi duñ toog di xaarum at duñ def lenn ndax alal ji xëy na mënaguñ ci woon a jot loolu moo tax waxu waxuñu ne at mu ne dañ koy génneel asaka waaye lépp nañ ko boole asakaal ko benn yoon naam jazakum jërëjëf cheikhana cheikh bi waa ji mi ngi woote bitim réew nee na soxnaam wax dëgg yàlla ku bëgg diine la ku dëggu la tamit ku euh, ku bëgg xam-xam laaj diine nee xam nañ tamit fonk na nitu diine yi mais nee na dafay woo téléphone ay ustaas yu bari senegaal su ko laajee mu ni ñii ay ustaas lan samay ustaas lan sa senegaal mu ni loolu nag moom mu jàpp ni moom waru koo def te jëlu ci moom ndigalam di woo ay góor te jëlu ci ndigalam lool nee na indi na sax ay coow yu bari digganteem ak moom mu ni loo leen di laaye biir alhamdulilah su fekkee ne soxna si dafa nekk borom këram ay jokkoom ci téléphone dem ba àgg ci boroom këram sib ko ca loola mu tere ko ko su boobaa la jaadu rek mooy bàyyi ko moo xam ñu muy woo lu tax mu di leen woo nag ginnaaw nekkut loo xam ne lu munta ñàkk la su boobaa la jaadu mooy bàyyi ko ndax bu fekkee laaj ci wàllu xam-xam la ab ustaas bu ñuy laaj <clears throat> mën na caa am kenn koo xam ne xam nañ ne kii boroom xam-xam la saabu soxlaa laaj laaj ko te du ci am lenn lu muy nëbbu walla loo xam ne lu muy eh, xuloo boroom këram la kon la jaadu ci situation bii mu wax mooy mu daal di arrêté loolu ci lu gën a gaaw ndax kat suñ ca continuer ba am lente ca ba euh, lu ca mën a xew su boobaa moom mii di jigéen moo tooñ boroom kër am na droit ci soxnaam ne ko toogal ci kër gi am na droit ci ne ko téléphone bi bu ci wax ak góor goo xam ne gërëm loowuma ko loolu lépp sañ na ko su fekkee xëtt na sart yooyu nag ànd ak ne moom tere na ko ko su boobaa moom moo tooñ naam jërëjëf cheikhana jazakumullahu xayra cheikh bi kii nee na dafa gis ci théâtre yi mu ni nag lu sax sax mu ni ci théâtre parce que yi tamit dafay sax dafay jàll ay message yoo xam ni nit ñi mën nañ koo jël defe nii noonu la demee mu ni ci théâtre boo xam ni euh, ndaw si dafa am ku ko bëgg ni ko dama dama laa bëgg soxna ndaw si ni ko man de jotoon naa sëy ba am sax doom mu ni ko kon yow man ngaa maye sa bopp man mii tamit mën naa ñaanal sama bopp mën nañ koo def du am kenn ku koy seede ñoom ñaar ndaw si ni ko ay ca ndaw waa ji ko man diw maa ngi lay ñaan ci farata yàlla sunne Muhammad ndaw si ne ko man maa ngi lay may sama bopp ci farata yàlla sunne Muhammad mu ni ndax sëy boobu dagan na wala luñ koy tudde alhamdulillah ab sëy boo xam ne amul ay seede amul waliyu loola dug sëy ci sharia sëy ba ay caaxaan la waaye dug sëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa nikaaxa illa bi waliyin wa shaahiday adl ab sëy du wér lu dul jigéen ja dafa am kilifa bu koy maye mu am itam ñu koy seede ñu maandu ñoo xam ne lu ñu néew néew nañu mat ñaar su loola amut sëy nekk fa wallahu taala alam جزاكم الله خيرا جزاكم الله بارك الله فيكم شيخنا cheikh bi kii nee na dafa am frère am boo xam ni moom Italie la nekkoon amoon fa kayit après mu ñëw Sénégal gaañu moom mi nga xam ne mooy rakkam te lim ko li ko frère am bi màggee sax bëri na mais moo mujj jël kayit yi dem Italie di ca liggéey liggéey na fa ay at mais moom it comme salaire bi da mage woon lu bëri euh, wax euh, jamonoy retraité am jot mu dugal ay kayitam ñu koy fay euh, maam retraité am nga xam ne day dem ñëw daal Sénégal lay toog léegi su jotee rek mu ñëw jël si xaalisam di ca dund waaye nag frère bi nga xam ne moom la jël ay kayitam bàyyi na fi ay soxna bàyyi na fi ay doom mu ni kon xaalis boobu ndax dina dagan moom dong mu gardaañoo ko wala da ko war a jox ñële wala da ko war a bokk ak ñoom wala nu muy def alhamdulilah borom kayit yi daal loolu yi mu wax lépp boo ko toppee ba mu jeex ci kaw ak jubadi rek la tegu ndax ka doon liggéey ba génn àddunaam jot mu génn àdduna te waxtu woowu retraité jotagul ci moom la jaadu woon rek mooy déclaré ne génn na àdduna kon kooka ci boppam yeeyowul lu ñuy fay lu ñuy tudde retraite moom ma faatu ndax moom mu faatu amagul woon su fekkee nag am na luñ ko cotisé loon loo xam ne dañ doon xaar bu retraité ñu jox ko ko far faatu ci diggante bi jàpp naa ne luwaaye buñ ko toppee danañ gis ne lam fa jotoon lañ ko fa jotoon a cotisé loola war nañ ko ko fay loola suñ ko ko fayee ci njabootam lu jëm ak ña koy doon moom mii ci jëmmi boppam yeeyoowul di lekk lu ñuy tudde retraite ndax moom ci boppam ay atam àggagut ci loola te amati këyit yoo xam ne loola ca la tegu kon këyitu jàmbur wu muy fayow retraite loola lum ca lekk lu lewut la jàmbur booba it lépp lu ca génn ci turu retraite képp ku ko lekk la nga lekk lu léwut la ndax moom ci boppam retraité wut lañ ko mënoon a fay daal mooy rappel boo xam ne dencaloon nañ ko ko àggut ci retraite ñu fay ko ko benn yoon ñu jox ko ak njabootam ñu miraas ko sariya day woote ci ak njub waaye du woote ci njuuj njaaj te loolu yi mu wax lépp moom lu teguwut ci yoon moom wallahu taala alam jazakum allahu xayran cheikhana cheikh bi kii mi ngi tudd Ibrahima Mbuub di woote ca Toubacouta nee na ñoom dafa am lun faral di daa def waaye nag jamono yi am ku leen ni loolu daganul loolu mooy lan nee na da gis ko am ñaari hectare am am ko am euh, gerteem bu mën a euh, ji ñaari ñaari hectare mu ne kon damay indi sama gerte ñu ji ko après ñu bokk ko li sax ci hectare bi nga jël li sax ci hectare bi ma jël mu ni ndax loolu dagan na wala déet alhamdulillah alors li mu wax day ci xeetu li ñuy mu almuzaaraa ci la bokk muy société ci wàllu mbay maanaam kii am na suufam kii am aw jiwoom borom suuf si ne ko sama suufa ngi kii ne ko sama jiwoo ngi mu ne kon kaay nu bay bokk noonu mu ko waxee mën naa nekk su fekkee ne daa nekk yaari suuf yu tolloo kii itam yor yaari jiw yu tolloo bu leen neexee ñu ji yaari lew yoo yi duñ ko ji ba noppi kenn ku ne jël wenn di ko saytu di ko toppatoo su boobaa loolu ci xeetu musaara yi dagan ci la bokk bu leen neexee it ñu boole lépp di ko ànd di bay ba ci génne bu ca génne ñu daal di koy séddoo loola itam lu mën a nekk la wallahu taala alam ma sha allah barakallahu fikum cheikhana cheikh bi laaj bi mi ngi jógee ca région de région de Saint-Louis ca Jama mu ni dafa am benn euh, sëll benn nag bu ndaw nee na mu doon nàmp ci euh, weenu nit weenu jigéen mu ni ndax dina dagan ñu lekk ko wala déet alhamdulilah laaj bu mel noonu daf fi faral di ñëw euh, walla bu ñuy lekk muy nàmp loo xam ne luñ dul lekk la ne am xar walla bëy woo xam ne day nàmp ab xaj walla muy nàmp mbaam walla ni mu ko waxee nii mu nàmp nit kooku waroom xam-xam yi dañoo wax ne nañ jëflanteeg moom ni ñuy jëflanteeg li ñuy tudde al jëllaala jëllaala mooy mala woo xam ne dafay lekk sobe sobe suy génne ci doomu aadama moo xam mala boobu dafa nekk am xar walaw bëy walaw nag wala dafa nekk sax ganaar jëlaal mi ñu jëflanteeg moom mooy ba lañ koo sañ a rend di ko lekk dañ ko war a téye fi béréb tëj ko yeew ko di ko xonte loo xam ne lu dul loola la di ko xonte lu sel bu fekkee dafa nàmpoon lu loo xam ne di su ko lekk ñu tëj ko di ko xont di ko jox am su fekkee mën a gut lekk ñu koy jox soowum loo xam ne lu ñuy lekk la di ko def noonu ba mën a lekk ñu koy xonte loo xam ne lu baax la di ko jox am ndox muy naan ba mu wóor ne la amul ci yaram bi ci jeexiiti lam doon nàmp loola moom wóor na ne set na wecc su ko defee bu boobaa mu la neen di dagana lekk loolu nag waroom xam-xam yi am na ci ñu koy nattale ci weer am ci ñu ko yóbbu ba ci yetti weer waaye lu mu ca mën a doon rek saa bu demee ba xelam dal ci ne daal moom mii lam lekkoon la lam nàmpoon war naa set ca biir ba su boobaa dagan nañu jëfandikoo ko wallahu taala alam jërëjëf cheikhana jazakumullahu xayran cheikh bi soxna si nee na papaam dafa faatu mu ni ndax dina dagan muy dem moom de temps en temps ca armeel ya di ko ñaanal الحمد لله بابام دا فو فات ندخ دغان ماي دن سي ارميري ديكو نيانال ليك ليك دغان نا موي دن سي ارميري ديكو زياري دي زيارة القبور سوكو زيارة داك نيانا لا ليكو واي نيانال جي موم بون كو تنك موك تي جوك دم سي قبرو با داكوي نيانال فو مو جولي فو خلام waru koo yeexee ba ba muy dem ca xabru ba rek ngir ñaanal ko ma ne na saxoo di ko ñaanal fu mu ko fàttalikoo wala fu mu jullee su ko dee seeti nag léeg-léeg mu dem ziyaare ji xabru ba comme ni ñuy ziyaare yeneen i xabru ndax ziyaare xabru dafa gën a yaatu ñaanal nit ki kii ziyaare ji xabru bi day ziyaare xabru ngir fàttaliku àllaaxira waaye ngir ñaanal ko fa tëdd su fekkee ab jullit la waaye ngir topp sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ndigalam kon yetti objectif yooyu moom la ziyaaratul qubur am su fekkee ñaanal waajur la nag loolu moom dafa bokk ci yi nga xam ne nit ki def ko war a saxoo moo xam ziyaara ji na ko moo xam ziyaara ji wu ko ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee ñaanuk doom ju baax ji nga xam ne waajuram da ko fee bàyyi kooka bokk na ci yi nga xam ne gannaaw bu génne àdduna tuyaabaam da koy fekk fa mu tëdd naam jërëjëf cheikhana waffaqakum allah cheikh bi waa ji nee na dafa am kum doon labat bi demee ba dara des ci dudul takk ndaw si doo koy xamal ni ko dafa am faru la rab nee na moom daal mu xaw a découragé ndax ndaw si ni ko faru rab bi da koy da koy dikkee da koy dikkal ci kaw lal te mu ni moom daal vraiment maanaam xolam mënta kii muy bokk ak jigéen euh, keneen rawatina maam jinne joo xam ni maam day ñëw di joteek moom mu ni nu muy def ndax da cay génn wala alhamdulilah lu ñu tuddee faru rab woo xam ne jinne la day wuy dikk jigéeni nit di séy moom loolu moom cim xel rek lay nekk waaye doonut dëgg doonut lu am ndax su fekkoon ni jinne day séy nit di ko ëmbal euh, ñooy am faru rab te amuñu jëkkër sax bu yàggee mën nañoo ëmb su fekkoon ni ñu gisee moom waaye loolu xeeti waswaas la yoo xam ne ci xel yi la nekk lu ci bari feebar xel la boo xam ne boroom dafa teyluwut wala joxu ko fajkat yoo xam ne yu xarañ la ngir ñu seet ko ba xam moom mii lu ko dal waaye li ñu tuddee faru rab muy ñëw di sëy jigéen joo xam ne jigéeni doomu aadama la te farwati jinne lu mel noonu moom amut sëy ba ñu génne ko ci xel yi والله تعالى أعلم بارك الله فيكم وفقكم الله وأيدكم وصدد خطاكم تنتي لرنا ناني شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا kon mbokk auditeurs yi formation universitaire de qualité université américaine fii Sénégal DAUST Dakar American University of Science ak technologie du université boo bu panafricaine la nga science ak technologie rek Sénégal DOST da di jox formation 100 en anglais ba noppi lépp de du contenu académique identique aux universités américaines ak DOST di ngeen am possibilité wu nek ingénieur bu compétent ci ay métiers yi nga xamni mom modi manam mbirum informatique ak science yi nga xamni mom mo dugg ci bir informatique mën nga nek ingénieur mécanique aérospatial nga xamni nak ñoñu nga xamni ñom ñoy liggéey ci walu lolu nga xamni mo jëm ci jawu ji nga xamni nak yi naaw jëm ci jawu ji ak roplan yek yoyu mën nga doon it ingénieur électrique nga xamni lépp loo xam dafa jëm ci électricité ak courant DOS dalay lay defal formation euh, bu conforme ak système LMD DOS dalay lay defal euh, formation bo xamni ni euh, da ko inspiré ci université américaine yi contenu bi yépp fofu la jóge DOS dalay former nga daldi am ben approche bo xamni dañ ko basé ci njanguma anglais lepp lo xamni dañ la koy jàngal dañ la koy jàngalee ci anglais salle de classe yi ba laboratoire yi ñu ko équipé ba mu mat am équipe pédagogique bu qualifié waaye nak DOS dalay jox enseignement programme en anglais ñu nga xam dañ ko déjee yep ci domaine innovation ak robotique ak intelligence artificielle ak machine learning ak codage ak mécanique ak aérospatiale Lol yep nga fay jang bo ci beugé am lu la le ci suñu numéro bi amna whatsapp 00221 78 128 44 58 78 128 44 58 wala nga visiter suñu site web www.dost.org wala dig daje ci suñu page Facebook Instagram wala Twitter wala sax mën nga ñu yónnee mail ci admissions ak s Home Choice Sénégal ouvrier moi je suis professionnel Que que vous xam professionnel de wala ngay ouvrier da ngay outillage Nous sommes numéro un ci le outillage Si nga xam ci mi ak la marque Total est de renommée internationale lan groupe électrogène aspirateur pompe émergée motopompe meuleuse perceuse visseuse voilà lan Total suñu adresse mi 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 821 45 45 suñu partenaire ña nga ci Mbour Tiwawan pikin Tali bu mag Touba Kaolack mais aussi à Saint-Louis la marque Total fo dem ci aduna bi fekk ko fa ndax qualité jataayu fatwa yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na FM jagleel na leen seen émission bi di Alfatawa Alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine alarba bu jot vingt et une heures jàpp ngeen ci ànd ak al oustaz Abdallah Baba Dieng mu ci feggoo ak ak docteur Mouhammad Ahmad Lo ak seen émission bi di al fatawa ku am ak laaj jëmale ko ci émission fatawa mën nga koo bàyyi ci numéro bii nga mën faa bàyyi sa laaj ci whatsapp bi kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine عزمات يميني لو عندي عمر يكفيني نشرت تعاليمي